Soutenons la Dara d'Oustaz Alioune en envoyant Ali Imran au Ali Imran au Recevez chaque vendredi un hadith, un conseil ou bientôt des leçons de fiqh pour le coût de 300 francs. Soutenir la Dara parce que chaque geste compte. wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxa almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma inna nasaluka xayra ma fi hadalam wa xayra ma bacd wa naudu bika min sharri ma fi hadalam wa sharri ma bacd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 daal defal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi al misbaax ñaanal ko tawfiix sutura ak ak poche def dara noo ngi woon ci sunu tomb boobu jëm ci liggéey liggéey ndax dañoo nekk ci weer wu tudd mai te adduna si yépp di fàttaliku liggéey ci weeru mai mbokk yi liggéey di lu am solo ma doon lim démb lenn ci métier yi waaw doon lim démb lenn ci métier yi ndax liggéey mooy li nga xam ne mooy tax doomu aadama am lum jàpp na ko Sëriñ Fallu daan waxe ba noppi ko waral man dimbale nga mën ko caa dimbale liggéey kon wàccuwaay la bu am solo la am ci lislaam bu kowe sax day taxa am xaalis waaye day tax am tuyaaba liggéey ak jaamu yàlla lu gu waaye liggéey jëfe ndigali borom bi la subhaanahu wa taala moo tax liggéey ci la dund gi di nosewu jaar ci yoon liggéey mooy tax kër yu dund waaye liggéey mooy tax réew yi ñoom tamit réew yi naat réew moo xam ne ay doomam duñu liggéey xanaa wax rekk coow li bay day tax duñu dem fenn fi ne am na yoo xam ne jërul di wax sax def gi rek loolu la waaw def nañ ko def rekk moo tax bi yàlla xamee loolu mu daldi di ñuy sant ñu liggéey mu ne nañu ci alquran fa di xudita salaatu su ngeen noppeetee ci jullig ajjuma bu imaam sëlmalatee ci jullig ajjuma fantasiru dellu leen tasaaroo leen fil ard tasaaroo leen luy tasaaroo leen kenn ku ne na dem ca lam nekkoon kenn ku ne na dem ca lam nekkoon ndax yàlla lim lim jàpp mooy bi mu nu wooxee kenn ku ne dangaa bàyyi woon la nga nekk kon buñ jullee ba noppi kenn ku ne na dellu ca lam nekkoon wabtaxu min fadlillahi ngeen wuti foofa ngeen nekk kenn ku ci nekk wuti fa wërsëgam waaw jàngalekat yi dem dellu ca classe ya créé taximaan yi dellu ñi nga xam ne ñooy assurance yi tubaarkàlla ñoom séexloo <laughs> dellu ca bare bi ya magasin yi ñe borom magasin yi dellu kenn ku ne dellu ca la nga nekkoon waaw waskurullaha ku ci nekk nag ba ngay dem ca la nga nekkoon na nga bàkk yàlla te xam ne yàlla suy wërsëg def la ko foofu fi ne bu nu xëyee am na ñoo xam ne dakaar la ñuy xëyee fu ñu jëm ilaa Thiès waaw fantasiru fil ardi am na ñu jóge Thiès taseeg ñoom jëm si fii ñu xëy fii ñun jóge daaru ci bu ñëw si dakaar am ñu jóge Dakar jëm daaru ci bu waaw mu ngoog da fekk soxna soo xam ne si soxna bu Taal day xëy dem liggéeyi ab jànq bi daan xëy këram moom hmm? waaw waaw yow xëy nga liggéeyi am ku xëy wërsëg waawee nga am moom mu xëy si ci moom ci sama borom buñ la dompalee nga dompal ko waskurullaha bàkk leen yàlla mi nga xam ne moo def loolu waskurullaha kathira tudd leen ko lu bari laalakum tuflihuna ndax ngeen mucc ba lu ngeen dajale ci liggéey bi rek mu jariñ leen Ah, waaw borom bi ci loolu tax ci la wax it beneen yoon wa jaal na nahaara maasha maa leen sàkkal guddi gi ndax ngeen man maa leen sàkkal bëccëg bi ngeen baal ma ndax ngeen mën a am maash luy maash mooy lu ngeen ndékkee lu ngeen añe lu ngeen reere ak lu ngeen de desal denc wa jaal na nahaara maasha ma tax ba seeti rek ndeysaan nga gis nit ñi xëy bu ngoonee ñuy wàcc waaw bu dee Sénégal nag bu dee dakaar yal na nu yàlla yërëm nit ñëpp xëy dugg biir Dakar mu ngoon ñu génn bu ñuy dugg mu embouteillage bu ñuy génn mu embouteillage xaw ma kañ lay dañ ndax 1960 la tàmbali woon bi may ñëw Dakar 79 ak fii nu toll daanaka mën nga ne autoroute bii jëm Malick si dugg biir dakaar xaw ma ci coppat yu bari dugg Dakar jafe génn Dakar jafe waaw dugg Dakar jafe génn Dakar jafe monsieur le président. wala monsieur le ministre waaw <laughs> ki wàllu transport ak tukki beeg ñoom seen yooyu borom bi neena ci wàllu dund wàllu liggéey wala si jaala lakum al arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min risqi wa ilayhi nusur ñëwoon na ci waxtaan bi mbokk yi liggéey lislaam def ko wenn xeet ci xeeti jihaad yi fi sabilillah lislaam xam nga jihaad mooy baat boobu nga xam ni pénc bi dañ ko ragal léegi ndax ay noonam ñoo ko jabolise ba ku dégg jihaad rek ne ë waaw waaye al amalu nawun min anwail jihaad fi sabilillah liggéey xeet la ci xeeti jihaad yi ci yoonu yàlla waaw lenn ci saaba yi dañu ma seen taxaw naka jëkk sawar lool ñu gis wenn waxambaane wu am yaram maanaam bu sawar laa bëgg a wax sawar ci liggéey rek ñu daal di waxtaan daal ni law kaana haada fi sabilillah ay waay kii ku ko yóbbu woon mu xare fi sabilillah yonente ne lu ngeen wax ni ñu ne waaw kii ak ni muy liggéeyee ni mu yenu birig yi bu fekkee mason la waaw ni muy jàppee marto bi bu fekkee tëgg la nangam nangam coow yonent bi la laa taqulu haada li ngeen wax nii bu leen ci dellu bu leen ko waxati fa innahu gis nga xale bi in kaana xaraja yasa ala waladihi saxira wala wala waladihi sixaar awlaadihi sixaar mu ne bu fekkee ne kii dafa génn di liggéey ngir lum indil ay njabootam ñu ne ha yonent bi foofu fii sabilillah waaw ndeke kon nit ki mën naa génn këram dem biroom ndekete ma nga jihaad fii sabilillah ñu ne ko waaw mu ne wa in kaana xaraja yas'a ala abawayni sheykhayni kabirayni foofu fi bu fekkee dafa génn la tax mu génn mooy lu yore ñaari waajuram papaam ak yaayam te dañoo màggat dafa jihaad waaw ba tax sunu mbokk yële nekk bitim réew waaw ñoom Roger ak ñoom dooroog ñi mel ni ñoom ñoom Bekay Seen ñoom Ibrahima njaay ak gaa yépp ku lim jum ndekete sol aw dàllam dem te li ko tax jóg mooy ay doomam ma ngay jihaad ndekk ki sol aw dàllam dem te li ko tax jóg mooy ñaari waajuram tabarkalla ñaari waajuram waaw waaw foofu sabilillah mu ne wa in kaana xaraj yasaa ala nafsihi yafuha foofu sabilillah bu fekkee boppam a ko tax a jóg nga xam ni dafa jóg pour lum sàmme ngorom ndax dafa bokk ci li jafe ci sunu réew mii euh, lu mel ni denc soxna samp kër walla am kër li fiy luyee ci dëkk bi genn xamul nu mu toll waa ji nga xam dafa génn pour am lu mu dajale ba bu ñëwee am kër toog kooku fi sabilillahi la nekk waaw fi sabilillahi yàlla nu yàlla yërëm maag suñu mbokk si laag ñi mel ni ñun waaw rekk tabarkalla <laughs> waaw mu ngoog nee na wa in kaana xaraja riyaan wa mufaaxara foofu fi sabil shaytaan len daal la xam mooy su fekkee ni tiitaroo ko tax ak génn waaw ak puukariw ak bëgg lum noose su boobaa nag seytaane lay jihaadal waaye jihaadalu ma man jihaadatul yàlla ak yonent bi mbokk yi liggéey defuñu ko rek li kasbil maali ngir am alal rek déedéet dafa am lu ca nekk muy ataabud te moo dig jaamu yàlla gi ci am ndax liggéey day tax ñu am al amn maanaam lé réew mi am liggéey fi ñëpp am liggéey mbaa ñu bari day tax am sécurité gis nga agresseur yeeg ginsman yeeg dorogumaan yeeg yu ni demee am ak jot day tax nit dugg ci léeg-léeg yu mu dugg yonent baa ko jàngale woon kon bu liggéey baree walla liggéey am mbaa ñëpp am liggéey sécurité day gën a yomb ci pénc mi ndax ku xëy dangay xëy ci la ngay liggéey waaye xëy toog moom tabarkalla am na lu mën a jur waaw su ko defee loolu ñu tuddee sécurité waaw moo xam sécurité sociale wala luñ cay teg teg ko ca ca baat ya professeur loolu liggéey da koy maye liggéey da koy maye waaw te loolu bu fekkee am na équilibre da daal di tàmbalee am équilibre mooy lan mooy justice sociale mooy li nuy am ci réew mi nu yëg ne nun waa réew mi nun ñëpp a ko bokk nun ñëpp a ko bokk teraanga yi nun ñëpp nu bokk ko ndax réew mi aw nag la bu am ay batt ñu war di ca ratt ñun ñëpp nuy bokk di añ ca soow ma di reer ca soow ma di ndékk ca soow ma dama ndaw ku ndaay baal ci misaal moomu waaw bariwaa na penc moo xam ne ñi xëy liggéey yi tax na penc ma am jàmm ba demee ci réewu Europe yi ku xëy yaa ngay xëy ci la ngay liggéey ba demee ci réewi Afrique yi ñu bari dañuy xëy duñ liggéey garam place la ñuy dem waaw ñenn ñi daje feneen ñenn ñi daje feneen ñenn ñi ne ci leneen moo tax loolu dafa am solo lool ci wàllu liggéey xam na syndicaliste yi danañ ci danañ leen ci defal ay séminaire ak i jataay ak yu demee ni ko yooyu tabarkàlla liggéey lu am solo la yàlla na ñëpp am liggéey ma waxate ko nag ñëpp am liggéey oustaz Ahmed Dame Ndiaye nee na mooy état bi sàmmal kenn ku nekk la nga am ci métier ba nga cay tedd te kenn du ko yàq kenn du ko sayte sayte su loolu mooy wutal ñëpp liggéey waaye fexe ba ñëpp yi xëy moom ah tabarkàlla mu ngoog su ko defee borom bi subhaanahu wa taala daal di jàppale ñëpp équilibre daal di am bokk na ci liy tax am liggéey nag ba tey wala bokk fonk ko mooy jokk ak bokk jokk ak bokk da yaatal wërsëg ndekete kon ak jaamu yàlla nga ca man sarrahu an yubsata lahu fi risqi aw yunsha lahu fi athari fal yasil rahima waaw ku bëgg yàlla yaatal sa wërsëg ku bëgg yàlla defal laloo fi bàyyi ëllëg del jokk ak bokk del jokk ak bokk mooy la ngay am ci liggéey ba dee ko bokk ak say bokk kuy bokk ak say bokk ah, sa wërsëg day gën a yaatu kuy bokk ak say bokk da fi bàyyi dara boo fii jóg da fi bàyyi dara boo fiy jóg tabarkàlla mbokk yi yàlla moo def kon suuf si ñu mën fee nekk di fi dund muy àdduna sii ñu nekk tey ju na yàlla tuur ko fi mbindeef mun a yàlla indi ko fi pour mu liggéeyal nit waaw wa nawun waa abwaabu risq aw wa nawwaa lahu abwaabu risq wa turuqa yàlla wutal ñu xeeti bunti wërsëg ak yoon yu ci jëm am na ñoo xam ne ca géej gi lañuy dem di seppi ca loola di jaay muy seen wërsëg am ñoo xam ne ña ca jaww ja ne ca avion ya di liggéey muy seen wërsëg aéroport yi gaañaa nga ca transport bi gaañaa ngi ci roq bu nekk yàlla ubbi na euh, bunt bu ca jëm yoon wu ca jëm suy fa wërsëg ku nekk ca la ngay nekk na ku nekk rafetal lam nekk rek tabarkàlla waaw waaw inna allazina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula liggéeya ngoog mbokk yi liñ sàkku cib julit ci wàllu àdduna sii mooy di tuur aw ñaxam te sol aw dàllam wuti bunti wërsëg ya waaye lu wërsëg bi bari bari na sa xol wékku ci yàlla dee ko xalaat waaw dee ko xalaat bu baax a baax di ko bàyyi xel ci li ngay def ndax moo la ubbil bunt yi ba deme ci alquran ma nga naan rijaalun laa tulhihim laa tulhihim tijaratun wala bay an dikrillah wa iqaami salaa wa itaai zaka yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alqulub wal absaar yàlla nee na ay champion xam na ko ci pénc mi bu nu xëyee ci kanam tuuti ñu dem ca seen commerce ga ñenn ña dem ca transport waaw ñenn ña dem ca enseignement ba ñenn ña dem ca ñenn dem ca mu ne waaye ñoo ñëpp ña ci nekk ay champion lu liggéey ba dox dox dox du dox seen digganteeg yàlla lu commerce ma dox dox du dox seen digganteeg yàlla du dox seen diggante it ak taxawal julli maanaam duñ mécc woo mécc mu leen di tax a bàyyi julli wa itay zakka duñ mécc woo mécc mu leen tax nay lu tax dañoo ragal bis boo xam ne te taqallabu fiil xuluub mooy bis bi nga xam ne ci ngay bàyyi ndeysaan ci ngay tàggook magasin bi tàggoog cantine yi waaw tàggoog banque yi du too ca dem tàggook tool yi tàggook kër gi ndeysaan daal di bàyyi fi lépp dem ca hôpital ba la ma góor ga Sidi Mbay Sidi Mbay waxoon ndeysaan nekkoon ci jumaay jëppal allahu akbar mu ne ma maa ngi dem nii hôpital te maa ngi yaakaar ne tukki bu dul dëpp la ndeysaan daal ni sama garaamu bi jël ko ndeysaan daal ni yëkkatil bopp bopp ngeganaay bee la fa nekk nga jël ko waaw su ma sañoon nag gone yi ñeme la rekk da ma ngeen baal ma ci nettali bi damay jàngale bis boobu nga xam ne ci ngay jóge di dem bis boobu la la yàlla wax ne dafa am ñu ci bàyyi xel moo tax laa tulhihim tijaratun wala bay'un an dikrillahi mukk wa iqaami salaati wa itaay zaka bés boobu suñu waajur woon ci Pikine waaw xaaji Omar si ak suñu góor ga waaw tabarkàlla nekkoon ca rajo dundaat ci santoon sëy waaw ku ci nekk wax ngay baate kàddu yoo xam ne dafa tekki ne yaa ngay dem waaw yaa ngay dem ñu bari dem nañu waaye lu ñu fi bàyyi tijaara gi fi lañ ko bàyyi bayun fi lañ ko bàyyi kon li nga fi bàyyi bàyyi ko fi li nga fi bàyyi bàyyi ko fi al ustaas Muhammadu Lamin Donde nee na ku nekk fuy jeex jëm fu dul jeex te yow ngay jeex bëgg fa lu dul jeex boo jeexalul sa temps bépp ci lu lay may lu dul jeex booy àgg di jeexal allahu akbar al oustaz Mouhamadul Amin Donde nekkoon na fii ci Sud FM mbokk yi dund gi daal ni muy na sewoo dafa aajowoo kenn ku nekk di fexe xëy di liggéey waaw tabarkal di liggéey rek fas yéene am loo tedde teral ci say mbokk rekk yàlla nañ ko am ñun ñëpp te fexe ba mag xaalis te xaalis ba ñoom mag buñ ko magee fuñ ko yónni mu dem bu nu magee buñ ko yónnee day bañ ndax yónni sa mag yombut jër ngeen jëf ci ànd si Sud FM seen rajo jërë ngeen jëf yéen sponsor yi macha allah tabarkàlla rawatina rawatina C3S mi nga xam ne dafa bëgg mbindum alxuraan mi dekki gën a yaatu mu moo senegal yépp ne kaay leen nu seet ku dàq bind ñu jox koy million bu bindkat ya tàmbali merci C3S ak ñi lay jàppale sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni taxaw yow seen i kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar tubaab firiñ fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu